bismillahi rahmaani rahim salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu noo ngi nuyuwaat bokki taalibe yëpp bokki jullit yëpp bokki dëkkandooyu Tuubaa yëpp di jotliwaat nuyóob samay kilifa ni ma ko baaxoo defee rawaat na bu may soobu ci liggéey bii nuyoo bu jóge ci Cheikh Mouhamadul Mountakha mii Serigne Touba moom dëkk bi jaar ci Cheikh Bassirou moom Serigne Abdou Khadir mii sunu jëwriñ ci liggéey màggal gii ak liggéey Serigne yu bari ko Serigne Mountakha def loo mujj sunu jëwriñ te nuyoo boobu jaaraat ci Serigne Cheikh Jëmb Fall mi jiite xalifa mi xalifa général Baye Fall yi doon lépp naa leeral li tax ma wax nuyoo bi fi waaye nuyoo bi mi ngi jëm ci bokki taalibe bi yëpp ma jiital kilifa yi ci nuyoo yi ak jëwriñ yi ak ñeen baaxoo àndal liggéey mbale mi ñëpp ñoo xam ne kàddu yi soññee ci mbale mi rek la jëm mbale mi waxtu wu bu ñu koy soññee dañ koy dellowaat ci ginnaaw ci ndigal la nam nu dikkale woon suñ Cheikh Mamadou Lamine Baara joxe suñ Muntaxa ndigal ne ko dama bëgg ñu setal dëkk bi balaa gani Sëriñ Tuubaa yi ñëw suñ Muntaxa bi mu egsee ci kër ga mu ne ma suñ Baara jox na ma ndigal loo xam ne joxaat naa la ko nanga dem fa ñuy nase màggal gi ñu seet ñu la booleel ngeen taxaw seetu dëkk bi te na dem ci sëñ Cheikh jëm Fall mi jiite njabootu Cheikh yëpp da nga wax ko ma defe ko noonu ci at mooma sëñ Muntaxa moo taxawul boppam mbale mi di xëy di yandu ci kër sëñ Touba gii ba tàkkusaan ñu def liggéey boobu ci toll juróom-ñetti fan lépp àgg ca déwén sa ba sëñ Mamadou Lamine Bara waxee sëñ Muntaxa ne ko màggal gi na la ko sëñ Basiiru sëñ Abdu Xaadir taxawul ndax liggéey bi daaw sonn nga ci ci metti na ci mag sëñ Basiiru sëñ Abdu Xaadir waxoon sëñ Muntaxa ne ko damaa bëgg nga wotal ma ci say jëwriñ ñoo xam ne damay ànd ak ñoom liggéey bi sëñ Muntaxa boole nu ne naa bokk ci ñi ànd ak sëñ Seex Bass liggéey bi sëñ Seex Bass ma la nga féete woon ci liggéey bi daaw dara ëpp ko ci solo kon na nga ca féetewaat te mooy seetal dëkk bi ma ne ko kon damay ñaan rek ñama ko àndaloon taxaw ko bam liggéey bi mel na wala mel dama bëggoon ñu maye ma ma àndaat ko ñoom ba ma ko ànd ak ñoom dina mën a sama xel dina ma daal ñu taxaw ko nañ ko war a taxawoo mu mayoon ma loolee te ña ma ko àndaloon nag ñi ci jiitu woon mooy Baye Fall yi sëñ saa jëmb waaye waxtu woon damay wax ne bu ñu waxee sëñ Cheikh Jëmm wax Baye Fall sëriñ Touba yëpp ak taalibe ndax noo bokk fu nekk bokk fu jëm bokk ñu doxe kon noo bokk lépp liggéey sëriñ Touba bu nit noo ko baaxoo ànd kon lii noon rek lañ koy waxewaat noonu lañ koy doxewaat àndal ko bokk kilifa yëpp ba ko bokk yëpp ak kilifa yëpp kon nuy soññewaat nag war a jubluwaat ci liggéey bi liggéey bi naka jekk niil daan demee ndax benn panu safar lañ ko daan tàmbali waaye bu ñu masaan weesu bisu ashora bi ci lañuy tàmbali réunion ñooy ak soññe yi ginnaaw bu ñu diisoo kilifa yi ginnaaw bu ñu jotee ndigal ci kilifa yi diisoo waat kilifa yi ndigal noo ko jëlee ci suñ Muntaxa ak suñ Saabas jokkowaat ak kilifa yi mooy tàmbali suñ saa jëmb jokkoo na ma moom dem naa fa léegi jot na ndigal foofu yëpp woote na ab réunion démb jëwriñ yëpp ñëw nañ jot lewaat naa ndigal li ngir ñu ànd waajalaat liggéey bi ñi ñu ko daan àndal nag mu nga tàmbalee ci ñi jiite mbooloo yi ci dëkk bi ak li ñuy wax ay chef de zone dëkk bi ñu seddale ko ay zone yoo xam ne zone bu nekk daa am ku fa nekkal liggéey bi ak ñi jiite daayira yi ak ñi jiite benn yi ak waa maire bi ak ñëpp woo naa leen démb waxtaan naa nañ tàmbaliwaat nañ sóobu nañ ngir waajal liggéey bi nii nag lañ ko daan defe bu ko defee mu jottali ba ñëpp yéeg ni ñu ngi waajal liggéey bi ba ba ci biir dëkku Touba ak biir réew mi ak bitim réew fooy man noo mën a jàppee ci liggéey bi nga jàppee ni ci noona bu dee waa biir Touba mu ngi tàmbalee ci borom oto yi tàmbalee ci regroupement benn dëkk bi noonu la ko daan defee ki jiite groupement chauffeur yi ñu wax ak ñi moom oto yi ñuy déggoo bañ jox ma oto yi boobee buñ ci àggee ba liggéey bi àgg lañ ci daan dolli mooy maire bi am na wér gu ñu ci daan féeti gu wér rawat lu jëm ci gasoil bi état bi lañ ci daan jàppee dafa daan jaar ci ministère ba jaar UGC seen coordonnateur ñëw yabal ndawam yi nekk fii lañ war a jàppe lépp ñu jàpp ci at mooy noonu lañ ko doon defee noonu rek lañ ko dinañ ko séentuwaat ni lañ leen tàllee loxo di leen waaj waat bu defee nag ñi war a liggéey liggéey bi jëkk bi nag mooy ñu jiite mbooloo yi nga xam ne mbooloo yi nag mooy ñii génn di setal ñi ko àndal mooy ñu leen taxaw mooy chef de yi bu ñu oto yi nañ ko daan defee oto yi ñëw ñu jox Baay Faal yi jox daayira yi lii jox zone yi lii ñun ñëpp génn ñu bale dëkk bi noonu rek laa bëgg ñu def waat ko liñ ko daan waxee it dañ koy gën a xam di ko gën a façon ba muy gën a yomb noonu la doon demee daanañ ko def ci juróom-ñetti fan juróomi fan juróom-benn fan at yëpp benn bis lañ mbale mi ak tonni bi doon ñaari fan lépp di ñetti fan ñu bayaali bàq yi ci biir ñetti fan yi ñeenteel bu ñëwee ko ren nag dolli nañu liggéey bi dolli lu ci ab sëkk sëkk boobu itam ñoo ngi xalaat ne faawum lu mu gàtt gàtt jël nu ñaari fan ak benn dëkk bi yëpp ak oto ñàpp yëpp mu xalaat ne kon ci biir ñetti fan yi bu dëkk bi setee dañu am ñaari fan yoo xam ne oto yëpp dañuy dem ci sëkk bi mat téeméeri oto nangam buñ dee xëy di sarse ba ngoon di sotti danañ fi def luñ mën a xam donte néewuñu dëkk bépp mën na sa ko setal ndax dëkk bépp daa yaatu te fépp dim ndox te day bari foo xam ne boo ko sëkkeetee nga ngëccoo ko daanaka la ngay seet du am njëriñ te bokk nga ca it bokk nga ca ngay sëkk ko tey du ci suba saa mu tawaat ndox ma ñëwaat waaye nag dañuy def liñ man lépp suñ ko am kàttan rek te lépp nu fas yéene liggéeyal sëriñ bi sellal ko dëkkam bi setal ko dëkkam bi wàññi jaaxle dëkkan ñi fi dëkk àggale yéene sëriñ bi loolu rek lañ ci façon te moom lañ ci bi moom lañ ci sooboo noonu lañu koy doxe doxee bokki taale bi yii ma bokkal taxawoo gi itam ginnaaw bu ma leen sante jottali seenu taxawaay bu rafet noo ko ànd waroon nañoo bokk jataay bu soññe bii dañoo jàpp ne ci beneen liggéey met mën a ci beneen liggéey fii waaye noo koy ànd ci biir ànd gi nag démb rek tase nan am na sunu ndey daara joo xam ne mu son su Mbàkke mooy mu ngi sunu kanam jëw yi ñi nga xam ne mooy ñu topp ci man sëñ Xaadim Mbàkke sëñ Mortalla Sy ak ñu dem na ñoom ñoom ñëpp démb ñu ngi fi woon kon léegi nag nañ ma euh, jéggal mënuma lim ñëpp waaye nañ xam ne kenn ku nekk fa nga ci daan jàppe ak na nga ci nekkoon noon rek la kenn ku ne ña nga daan soññ na nga leen soññ na nga leen wax na kenn ku ne loo daan jot na nga ko jottali ñu jiite mbooloo yi népp nu mu daan demee daal daan demewaat ba réunion yi bu ñu ko waree defaat bu ñu waree wax ci rajo yi bu ñu waree yebal mbooloo yi bu ñu waree tàmbali liggéey bi fu ñu war a yóbbu oto yi fu ñu war a yóbbu xéwal yi lépp non nan ko daan nas nan ko nasewaat xanaa day yokk suñu yitte rek fàttali suñu laxasaay ndax mu gën a yomb maa ngi soñ ñëpp di déglu di nekk ñëpp di tàllal ñoxol ñëpp bëgg na ànd ko di ñaan nag ci barkeb Sëriñ Tuubaa suñu borom bàyyil nu sëñ Muntaxa wéral na ko bàyyil na ko fi waaye nag ñeen daan sax liggéey bi kenn tam kenn ku ne maa ngi ñaan yàlla defal la jàmm ak wér jëli fi mbas mi defal nu yokk defal nu xéewal ba kenn ku ne noo ci bëgg a doxe nga mën ko caa doxe ba liggéey bi di gën a yomb liggéey bi gën a yomb suñu mbir yëpp di gën a yomb tey ëllëg maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp li tàmbali la buñ bañ yëgle na liggéey baa ngi ñëw li ci des nag ci àggee dañ ko a jàpp nañ nag benn paro safar bi ñu ko jàpp def ñeenti fan ci weeru septembre non waaye nag bu gën a jege dañ gën a génne date bi ba mu gën a leer réunion yi ñu war danañ ko waxaat nooy ànd ak sant ñëpp di gërëm ñëpp salaamaaleykum wa rahmatulah.